développement de la corniche euh, projet bu mag la parce que lu tax mu mag dakaar géej gi daf ko songoon nangu terrain yu bare au-delà aspect esthétique bi il fallait que ñu sauver Dakar ci géej gi nu mu ko naree woon nangu président nag moo ko xalaat mooy joxe idée yi ñuy sant yàlla tey bu mu ñëwee kontaan na lool parce que gis na ne instruction yu mu joxe woon appliqué nañ ko à la règle instruction yi traduire nañ ko ci langage technique ak architectural travaux yi nag ci quatre composante la soo bëggee protéger côte dafa am ay travaux yooyu def d'abord avant ngay protéger les falaises mais bi ñu defee loolu ba pare soo xoolee ci linéaire bi yëpp bloc des leen ba mosqué de la divinité y a beaucoup de plages yoo xam ne daanaka population yi bare bàyyi woon nañ leen plage yooyu la ñuy régénérer pour que nit ñi dellu siwaat ci géej gi am accès ci géej gi mais ñu def aussi un aménagement paysager parce que dakaar mi ngi tuddoon région di cap lu taxoon ñu tuddee ko Cap-Vert parce que dafa bari woon ay garab mais demoon nañu ba gis ni garab amatul ci Cap-Vert looloo tax nu war a jëmbat ci linéaire bi ñu am 2000 palmiers ak 700000 arbustes ak di gazon donc euh, aspect boobu Dakar pertoon daanaka dañ koy delloo si mais ñu protéger côte bi daañu régénérer plage yi euh, donc daanu soppi mu dakaar donc te loolu yëpp président de la république moo ko xalaat moo génne mooy yi moo ñu permettre tey ñu def lu mel nii te lii teeñ bi la rek bi ñëwagul